dali na jàmm ñoo ànd xëy yër yéen i kaay ñu xëyandoo yéen i gi di réew mi quotidien Source A Les Échos Le Témoin L'Observateur quotidien Sud Quotidien Enquête Libération Walfadjri mboolem yéen i kaay ñu xëyandoo ñu xëy di ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum Barça wala Barça gi jamono ji mbir maa ngi mel ni tulleeg maa la ci réew mi maanaam wàllu mbëkk mi yéen gi di réew mi quotidien nee na ñi nga xam ne ñooy faatu ci lu jëm ci wàllum Barça wala Barça gi ci réew mi jamono ji ji gën a dayoo Sénégal xale yi ñoo ngi faatu comme weñ yéen kaay gi di réew mi quotidien nee na ak gaal goo xam ne moo doon jéem a dem Espagne ci yaxu wakaam yi ci la gaal ga tëmbee am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkana yéen gi di source wa nee na ñi nga xam ne nag ñooy nekkoon ca gaal googe dañu doon jéem a daw marine nationale bi ba far nag daal di am lu ñu mbëkk ci biir géej gi daal di këpp am ñu bari ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan loole source a moo xëy di ñu ko xibaar yéen kaay gi di la témoin moom nag li mu gis ci jëye ji nga xam ne moo am ci waaxu wakaam yi mooy lu toll ci fukk ak juróom ñoo xam ne ñoo ci ñàkk seen bakkan guddik dimanche jàpp altine ci trois heures du matin fi tolleeg mosquée divinité bi fa la jëye ji kaay gi na ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi ak capitaine bi yoroon gaal gi dañoo demoon ba jaaxle maanaam daal di paniqué ndax marine nationale bi nga xam ne moo leen doon wër yéen kaay gi ne na ñi nga xam ne nag ñoo nekkoon ci biir gaal gi te nag am lu toll ci fukk ak juróom-ñett ñàkk ci seen bakkan fa ñu jugee nag ci biir Sénégal journal bi xëy na di ko faram fàcce nee na am na ci ñenn ñoo xam ne yëmbal la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Pikine la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne tuubaa la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Mbour la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Caaroy la ñu dëkk am na ci ñenn ñoo xam ne Mboro la ñu dëkk yéen gi di libération nee na gaal gi nga xam ne moo këpp ci waaxu wakkaan yi ba am lu toll ci fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne faatu nañu ci départ caaroy la woon caaroy la ñu départ ay trois heures matin la ñu tëmb yéen kaay gi nee na am na ñett ñoo xam ne rëcc nañu fukk ak juróom ñoo ci faatu am ñaar ñoo xam ne ay rescapé lañ yéen kaay gi di bi nee lu jëm ci wàllu mbëkk mi barça wala barsax gi ma ngi mel ni naam jéeyu bu doy boo xam ne am na ci waaxu ne Fass Boye la déparé woon gaal googee ba léegi kenn xamu ci dara kenn amu ci benn information maanaam Fass Boye dafa am ak gaal goo xam ne moo fa déparé woon boobaak léegi fukki fan ak juróom la te gaal googee ba léegi gaa yi gisuñu ko yéen kay gi di suddi ko di jaaxëy duñu xibaar naan ñu en tout cas ñi nga xam ne ñooy faatu ci ndox mi jamono ji maanaam ji gën a dayoo ndax fan yi nga xam ne moom la ñu génn lu toll ci ñaar fukk ci nit ñoo xam ne faatu woon nañu ci waaxu Saint-Louis jamono ji am lu tollaat ci fukk ak juróom-ñett ñoo xam ne ñoo faatu ci waaxu wakaam yee yéen kay nee na mbëkk mi jamono ji ma ngi rey journal bi di Rewmi Quotidien nee na nag ñi nga xam ne ñuy waa FRAPP France Dégage ñoom nag jàpp nañu ne jéye jé xale yi nga xam ne ñuy jël gaal gi ci réew mi dem ba amutuñu yaakaar ci réew mi loolee Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo ko waral ndax politique bu bon bi nga xam ne moom la ñu yore réew mi yéen gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu gaal gi nga xam ne maanaam moo tëmb ci waaxu wakaam yi nee nañu lu toll si juróom fukk jàpp juróom benn fukk ñoo ci nekkoon na yéen kay gi ne na gaal gi nga xam ne moom la gars yi duggoon te mu tëmb ci ndox mi du gaal ne mën naa dem Espagne yéen kay na ki nga xam ne nag moo nekkoon capitaine bi yoroon Sénégal gi dafa bëggoon a rëcc ci marine nationale far nag jéey ji daal di am far kaawa daal di am yéen a kaay gii di leen foo xëy duñu xibaar naan ñu enquête bi li nga xam ne moom la waneegu na maanaam gaal gi nga xam ne moo tëmb ci ndox mi du gaal googi moo waroon a dem Espagne waaye nag ci biir ndox mi ci biiri biiri ndox mi dafa am gaal gu mag goo xam ne moo fa taxaw xam ne gaal gu ndaw gi mooy jël di ron di yóbbu gaal gu ndaw gi di jël di ron di yóbbu ba gaal gu mag gi fees mu doog a départ gaal gu ndaw googee nag nga xam ne nag moo sëfoon ay nit ngir yóbbu ca gaal gu mag gaal googee a ma daw ngir nag rëcc ci patrouille bi nga xam ne marine nationale doon nañu ko amal ci biir géej ga yéen kay gi di wal fajiri xëy di ñu xibaar naan ñu lu ëpp fan fanweeri nit ñoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci loo xam ne motul fukki fan ak juróom ci biir ndox mi yéen kay gi de la turbine nee na xale yi nga xam ne ñooy jël gaal gi jamono ji bekkoor ak xiif ak pauvreté ak ñàkk ak ndóol gi nga xam ne moo nekk ci réew mi la ñuy jéem a daw te nag réew moo xam ne or baa ngi fi ndax ci atum 2022 bi lu toll ci 19200 kilos yi or yoo xam ne jël nañu ko Kédougou réew moo xam ne or baa ngi fi phosphate baa ngi fi pétrole bi ak gaz baa ngi fi waaye réew maa ngi ndóol ba maara détal yi loolee bokk na ci li tax xale yi di ko daw a jël gaal gi yéen kaay gi ne na ndox mi jamono ji ma ngi faata ñi ciy faatu ma ngi melu tuleeg male ndax boo ko xoolee diggante Ndakaaru Saint-Louis ak Kafountine lu toll ci ñett téeméer ak fanweer ak ñaar ñoo xam na ñoo ci ñàkk seen bakkan yéen kaay gi de Les Échos xëy duñu xibaar naan ñu en tout cas li fukk ak juróom ñu wax ne ñoo faatoo waaye nag ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci gaal gi dëgg-dëgg loolee ba léegi lu leer amugu ci fulu total moo ci am li am ci l'observateur nee na gaal gi dañu ko mbëkk mu daal di coincé ci ay xeer yéenekaay gi di Walf Fadjri bàyyi mbiru mbëkk mi te wax ci lu jëm ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak élection présidentielle 2024 yi nga xam ne moom la ñu xibaar naan ñu Amadou Ba fan yi nga xam ne moom la ñu génn demoon na Sen TV doon fa def ab émission waaye nag journal bi nee na dafa am benn benn jegeñaaleeb Abdoulaye Daouda Diallo boo xam ne moom la ñu wax ne moom lañu ñu mu doon jéem a def affaire u mystique affaire u xarxa fooxa ci fi nga xam ne mooy seen TV googe nga xam ne fa la Amadou Ba demoon yéen i kaay gi di réew mi quotidien xëy duñu xibara naan nga xam ne moom la ñu defoon cité kër góor gi ci kër Ousmane Sonko ba du ba du mën a dikki barrière yooyee dindi nañu ko Ousmane Sonko ginnaawam bandang jamono ci yéen i kaay gi di Direct News xëy duñu xibaar naan ñu Ousmane Sonko maanaam ku spécial la ci réew mi ndax Ousmane Sonko rek la ñu tuumaal lu jëm ci wàllum viol bàyyi ko muy doxi soxlaama te Sitor Ndour mi nga xam ne dañu ko tuumaloon lu jëm ci wàllum viol dañu koo jàpp dugal ko ci kasu bi Ousmane Sonko tuumal nañ ko lu jëm ci appel à l'insurrection waaye kenn tegu ko loxo Ousmane Sonko tuumal nañ ko lu jëm ci trouble à l'ordre public waaye nag kenn tegu ko loxo Ousmane Sonko ndax dafa am différence digganteem ak Karim Wade ak Khalifa Ababacar Sall ndax journal bi nee na Ousmane Sonko tëj nañ ko lu toll si ñaari ati kaso waaye nag ba léegi kenn jàpp ko yóbbu ko lan moo ko waral a kaay gi de yi nga xam moom la ñu tegoon si di kër góor gi barrière yooyee maanaam dindi nañu ko journal bi nee na usman Sonko nee na loolee du événement ndax ñi nga xam ne ñoo jëloon ay barrière def ko fi ñooñee ñoo xëyaat daal di koy dindi yéen kay gi di source a nee na Ousmane Sonko démb ñi nga xam ne ñooy ay farandooma ak i bi ñu déggee ñu ne barrière yi dindi ko am na ñu bari ñoo xam ne dem nañu cité kër góor gi maanaam mel ni luy siyaare ji Ousmane Sonko journal bi nee na wàllum pèlerinage la ko gars yi jàppe woon manaam wàllum acca ndax am na ñenn ñoo xam ne sax bi ñu ñëwee nee nañu dañuy siyaar Ousmane Sonko ba pare laaj ci li nga xam ne mooy ndoxum sam-sam mi naan ci doog a ñibbi journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy soppee Ousmane Sonko yi dañu ko doon siyaare ji jàpp ne foofee ab bërëb la boo xam ne bërëbub aj la yéen kaay gii di réew mi ko di jenqëy duñu xibaar naa ñu Cheikh Bara Ndiaye niki démb daat nañu koy déglu juge d'instruction Mamadou Seck moo ko dégloo ay avocat ma nañ li nga xam ne mooy ab bàyyam néegu ni ko maanaam ab liberté provisoire journal bii di bés bi nee na juge bi daat nay sàkku Cheikh ko ñetti téléphone yi nga xam ne maanaam tegoon nañu ko loxo yéen kaay gi du l'Observateur nee na malaise moo am ci transport bi jëm ci wàllum jaww ji maanaam transport aérien jamono ji malaise moo fa am diggante Doudou Ka ministre bi ak directeur général bu AIBD di Abdoulaye Dieye journal bi daanay dikk ci njombe yi nga xam ne ñaar ñiy def nañu ko waaye recrutement yu doy waar yi nga xam ne moo am ca AIBD loole tamit journal bi ñëw na ci ak contrat à milliards yi nga xam ne moom la ñu fa nemmeekoo ko kees yu vide yi yéen kay gi di wal fajiri xëy duñu xibaar naa ñu Kër Massar ginnaaw taw bi ne taw na ko fa niki démb njombe gu rëy askan wa jamono ji ñoo ngi ci biir ndox mi bëri na ay kër yoo xam ne taw bi def ko ko nangu yéen kay gi di nee na bus Tata yi ak nga xam ne moom la ñu amal ñi nga ñooy passager yi maanaam am nañuy jafe-jafe lool ni ki démb sonn nañu yéen kay gi di Rewmi Quotidien nee na grève bi nga xam ne bus Tata yi def nañu ko maanaam réussir na ñi nga xam ne nag ñooy deux yi maanaam cag-cag yi ñoom gis nañu ci seen bopp yéen kay gi di sunu lamb nee na Ama Baldé dina bëre ñaari combat yoo xam ne diggante bi presque benn weer la ndax Ama Baldé dina bëre ak Gris Bordeaux benn fan ci weeru octobre maanaam premier octobre bu fa Ama Baldé jógee dina bëree ak moo Lo 5 novembre. Baol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te wóor ay journalistes yu xarañ te mën seen liggéey Baol info point net le portail du Baol sur le web. Baol info net mën ngeen a abonné sunu chaîne YouTube Baol info ngir ngeen di mën di jot bépp xibaar bu ñu dugal.